Assalamu alaikum, militantes et militants de la coalition Dundu, dirigée par notre frère Mohamedou Madana Khan. Madana, ñoo ngi lay remercier di la féliciter parce que ku gis mobilisation bi xam ne ñi nga àndal am nañu kóoluteef ci yow am nañu pas-pas ci yow am nañu yéene ci yow naaj bi tàng na toogaay bi yàgg na mais Sénégal jar na ko parce que toll nañu foo xam ne ñépp dañu war a dugal seen loxo ci Sénégal pour Sénégal bañ a tàbbi ci guta programme bi juróomi ponk la mooy pacte bi bi ci jiitu mooy la paix la stabilité la sérénité et la sécurité et la réconciliation nationale maanaam jubalewaat xol yi puisque féewaloo bi bare na te kenn mënul liggéey ci contex boo xam ni féewaloo bi day bari li ñu war a jubbanti itam yaatu na lool moo tax ñu soxla ay compétence maanaam ay boroomi xam-xam yoo xam ni bu ñu leen sampee duñu fa nekk mel ni ku nekk stage dañuy xam fi ñuy jaar pour indi saafara ci jafe-jafe nit ñi saafara yooyu nag fi ñu ko jëmale li ci jiitu mooy dund dund gi ñu fexe ba mu yomb te yemb puisque loolu moo sonal boroom kër yu bari dund bu cher bi loyer yu cher yi électricité bu cher bi bu dund gi yombee itam te nit ñi amuñu liggéey amuñu revenu duñ ci mën a jot loolu moo tax ñu def un programme spécial boo xam ni dañu ko déjee emploi ndaw ñi yooyu moom la ñu tënk ci programme bi muy paix gestion avec autorité pour assenir ce qui doit l'être compassion yër yërmande jëme ko ci askan wi travail wutal leen liggéey pour tabax Sénégal ba nuppi dundalaat yaakaar di leen sant yéen ñëpp ñi nga xam ni mobiliser ngeen di leen balu àq comme ni ko madaana defe ci toogaay bu yàgg bi ak xar bu yàgg bi jërë ngeen